Euh, ñu am ci euh, taxawaay bu bu bu am solo bu baax a baax. nomination maître Ngagne Demba Touré. oui sànq yaa ngi wax. bon j'espère que j'espère quand que que que qu'on n'aura euh, pas autant de xataraayu <laughs> que nomination wu <laughs> ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang le jeune Ngagne Demba Touré. bon je pense que c'est mérité parce que euh, même vu ci ci ci nomination yi. Mm-hmm. li ma doon wax léegi rek c'est-à-dire dangay xool. Euh, man de je me dis que tous ces gens là yu ñu fal am nañu am nañu mérite ci li nga xamante ne nii moom lañ leen dénk. moom kay euh, lenn am na moom ci nomination yi doo gis kenn kuñ ni kii. est ah, man loolu ma si neex mooy am na benn waay boo xam ne c'est un politicien. Hmm. c'est-à-dire waaje euh, maa ngi moom a yem jàngam soriwul. amul dara loo xam ne war nañ ko mën a fale mais dañ koy fal juste parce que voilà lui hmm. il était avec nous sur le hmm. terrain donc su ñuy wax parfois fal ki nga àndal sens boobu la ñuy waxee mais aujourd'hui su ma amee sama biir parti dama koy wax à chaque fois gis nga Euh, Pastef waruñoo bett sax ñu teg un boo xam ne lépp Pastef lay doon man de du ma que ñoom ñëpp ay kàngama fa ne c'est ça xam nga parti boo xam ne da ngaa ñëw rek dajale gars yi ne acca gars yi ñëw leen ñëw leen ñu mhm. xam ne ay kàngam ñoo ko sos ay mhm. kàngam fekk leen si ñu nekk si nekk si nekk si ba sénégalais yi mhm. euh, fekk si leen si li ñu nekk yaakaar naa ne am na loo xam ne waruta waruta waruta mën a choqué euh, Ngagne Demba Touré mooy li ma lay à chaque fois c'est-à-dire man jàpp naa ne ñoom respecté nañ ñu ndax li tax ñu respecté ñu mooy suñ la nee Ngagne Demba ture ba pare préciser la titulaire de master parce que man jàpp naa détail bi su leen neexoon du leen ci fekk. ñoom détail yi ñu joxe sax daanaka ñun tàmmuñu woon di gis ni bu ñu tabbee nit dañuy jox détail yi nit ki exactement lan lan la gën a xarañ ci ci li nga xamante ne man pour man loolu mooy dañ en quelque sorte mooy yow mi nar a wax waa mais kii li tax ñu dénk ko lii maanaam bañ lay bañ la naan diwu fal nañ ko dañ laa préciser moo tax euh, ñu ne la Ngagne Demba euh, Touré mm-hmm. titulaire de master lu euh, euh, mu tudd master de en droit et gouvernance des énergies et mines est nommé directeur de la société des mines waaw mais ki jàng mine kay xanaa boo ko dénkee mine wàcc na. wàcc na kay. <laughs> xanaa kenn du ne ki jàng mine bu nga ko jox mine. ah gis nañ fi taskatu xibaar bi ñu jox RTS ñu war ñu ko jox. waaw léegi man léegi. lan lañ bëgg dañoo bëgg ñu dem xool borom kenkaay rek jox ko RTS wala lan lañ bëgg. ah ba pare démb rek maa dégg kuy expliqué mu ne non euh, dafa am loo xam ne nii wàllu gestion la quoi. nee na affaire bi c'est-à-dire directeur RTS du mbirub du mbirub journalisme mais mbirub gestion la c'est-à-dire ay wax yoo xam ne. mais loolu. <laughs> doo xam fan la doo xam fan la tegu man damaa jàpp ne affaire bi xataraayu kase la ñoom balaa seen xol doon sedd. Mhm. ñu dem woowu ñoom Abdoul Mbow ak ñoom Mambay Niang ak ñoom Pape Malick Ndour ne leen léegi na jamaay woo ñooñu fan leen wala boog ne leen woo laaj leen ndax ñoom loolu lañ bëgg. Ah, parce que ces gens là man jàpp naa ne euh, c'est important ku mel ni Ngagne Demba Touré. Mhm. mooy li ma la wax nii c'est-à-dire dafay am concordance bu am ci la ñu ko dénk ak la mu jàng loolu c'est important aussi euh, ne aussi mu nekk jeune mhm. euh, nga dénk ko yenn responsable dafay nekk benn défi ci moom tey jii benn Ngagne Demba Touré mais lu mu lu mu mën lu mu lu mu mën a def pour réussir tey mission bi daf koy def parce que c'est un jeune boo xam ne mhm. euh, bëri na loo xamante ne nii mi ngi ci kanamam monsieur euh, Babacar Gning mhm. ingénieur en finance et stratégie euh, précédemment directeur général adjoint du fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS est nommé directeur du fonds souverain d'investissement stratégique. Mhm. c'est-à-dire xoolal fii par exemple nga xam ne ka nga xam ne nii euh, comme le cas de Fadilou wa pour voilà. Mhm. mais loolu yaa amul lu ko gën a logique. mooy ta fal koo xamante ne nii. fa nga xam ne nii euh, fa la ñu changé parce que moom ma nga fa woon ba pare. Mhm. am na expérience bu mu fa acquérir donc kooku ñu dénk ko euh, yaakaar naa ne euh, c'est une bonne chose rawatina suñu la nee il est ingénieur en finance et stratégie donc yaakaar naa ne loolu moom c'est choix bu logique la monsieur Dairou Thiam. ingénieur en informatique et télécommunication et directeur général de l'ARTP nañu waxante dëgg ki jàng informatique et télécommunication boo ko dénkee ARTP mais lii lan moo ko gën a logique léegi lii man moo tax dénk gu ma kenn de lii so léegi soo naan non lu tax ñu jox ko diw looy wax ah non non ko ko jox parce dafa bokk Pastef mhm. léegi bëgg waa Pastef nekk au pouvoir ñu ne léegi sax ku bokk Pastef du du am <laughs> du am ci poste de responsabilité mhm. koo di nga xool des gens que tu connais. Ouais. des gens yoo wóolu même bu doon média si lañ la dénk. Mhm. mais yow si sa parcours am na des gens que mhm. yoo xam ne rencontré nga leen. Mhm. mais nga gis nit nga ne eh diw de bokkoon nañu fii mais ak am talent diw de xamoon naa ko fii mais ak dëggu. mais nga jël ñooñu xëcc leen liggéey ak ñoom. diw mii kat am na diplôme ci lii diw am na xam-xam ci lii. nga woo nit ku nekk bu ñu la dénkee ñi nga wóolu ngay àndal liggéey. parce que mënoo dem jëli ay ñeneen ñoo xamul ne da ngay liggéey ak ñoom donc c'est très logique euh, le président euh, def choix ci ñi nga xam ne ñoom laa lim actuellement monsieur Assane Meng titulaire d'un master de en administration des affaires est nommé directeur général de la société Dakar Dem Dikk donc loolu aussi noonu laa ko mën a toppee ku ci nekk rek euh, yaakaar naa ne précision bi c'est important dañ naan diw il est ingénieur en telle chose ak leneen mhm. je pense que c'est important. ñu mhm. taxaw si loolu bu baax. bijou waxaloon ma mu waay. <laughs> voilà ci euh, xam nga nag euh, moomoo Sénégal dañu tàmmoon benn mbir mooy que ne bu ñu bu ñu falee ab gouvernement. dañuy mhm. am xool ñi nga xam ne tey ñoo àndoon ca xeex ba. donte amuñu compétence ci li nga xam ne moo di responsabilité bi ñu leen dégg. Mhm. mais dañu leen koy def pour neexal. alors que sa gouvernement de rupture. wax ni carrément ñun du partage de gâteau du séddoo ku ne poste bi nga mérité moom lañ lay jox tey ñi nga xam ne tey ñooy ñooy nekk ci banc de touche bi di diaboliser. Mhm. ñooñu la ñu tàmmoon loolu la ñu bëgg mu continuer ci réew mi alors que bu ñu waxee rupture rupture fii lay commencé. ku ci nekk ci domaine ba mu nekk. ñu mhm. jox ko mbir mi ñoom li leen li leen déranger mooy ñun rupture la mooy li li waa Pastef wax rek ñun rupture la ñuy def. maanaam suñuy dénk dañuy dénk que mérité. waa léegi que mérité boo bokkee ci c'est-à-dire ñoom détail euh, boobu moom moo leen di xaw a échappé tuuti mooy mbir nañu ko dénk ko ko mérité waa léegi ko ko mérité bu dee boroom xam-xam boobu mais xoolal Pastef configuration bi nga gis euh, cadre Pastef yi mm-hmm. ñeneen ak ñeneen saa waay yow loo soxla boo ko amee ci sa biir kër nooy génne sa kër di ko wuti ci feneen c'est sûr pour quelle raison pour faire plaisir aux gens leur montrer que voilà mm-hmm. euh, man damaa jub faluma ñi nga xam ne ñoo ànd ak man mais damaa dem xool ji ñeneen amul benn sens. c'est-à-dire euh, ñi nga xeexandool. tey jii ñi nga xam ñi nga fréquenté moo tax xoolal ci choix yi dangay gis des inspecteurs des des impôts. même ci ministres yi da gis. ku ci nekk maanaam fa nga nekk ak des gens yoo xam ne wóolu nga leen mais lañ mhm. daan gis lan la mooy euh, à Kédougou euh, dañoo bëgg foofu dañ fa am popularité noonu lañ doon nommé mooy dañuy toog ñu ne ah da nga doon toog sax nga dégg nit ñu def nomination ba pare mu naan non li président Macky Sall def lu toll ni yëmbal amul ministre. wala lu toll ni Pikine amul ministre. parce que affaire bi dañ ko bëggoon jàppee benn découpage administratif. parce que waa côté bi il faut ñu am benn waay boo xam ne moo fay nekkal président. Mm-hmm. affaire politique. lañ ko dénk xaalis ba mu say jëlee si politique la koy dugal amul lu muy amul obligation de résultat dañ lay dénk Dakar dem dikk pour nga mun fa nekk di am xaalis di def say affaire am xaalis boobu mun a boo xam ne di ci mën a mën a euh, exercer say activité politique fa nga xam ne fa nga dëkk donc tey jii wax dëgg yàlla comme je dis à chaque fois nag bu gars yi doon kaas sax man gëm naa des jeunes sénégal yu génn ne voilà waa Pastef li ngeen def léeg-léeg mais ñi fi nekkoon amuñu lu ñu war a mën a wax parce que ils ont fait pire wax dëgg yàlla parce amuñu amuñu leçon bu ñu war a mën a joxe mm. moo tax quand j'entends certains ñuy wax et li gën a doy waar man dama jàpp ni miracle la mooy ña doon xeex projet bi ñoo mujj di défendre projet bi maanaam projet bi lii la waxoon ñoom ndeke xamoon nañu dofuñ jiin a jàpp leen xam nañ li projet bi wax dañoo topp seen bakkan topp ay caaxaan ba dem ba à un moment léegi ñoom ñoo mujj di défendre projet bi bu président Ousmane Sonko ne damay nommé nit ñu ne ko non non président yow yaa waxoon appel à candidature loolu moo nekk ci projet bi. léegi noonu projet bi ñoo mujjee nekk les protecteurs du projet foofu lañ mujjee egg. donc euh, tey jii euh, mën nañ am confiance ci cette euh, ces jeunes là yi nga xam ne tabb nañ leen et puis on les laisse le temps Sénégal. kenn amul fi complexe su kenn. kenn amul complexe jomaay mais yow. <laughs> lan. kenn amu fi complexe su Diomaye kenn amu fi complexe su mhm. moo tax su ma gisee parfois des gens yoo xam ne dañuy génn euh, di jaay affaire de ma gis nga fii Sénégal diggante deux mille vingt en un jàpp deux mille vingt quatre ñi fi borom fit xam nañ leen. Mhm. ñi fi tàppet xam nañ leen. mais saa waay affaire yi di jaxasoo di métti tëj gi rey gi mel ne tuleeg màlle nga toog sa ruqu dem ba affaire yi dal nga génn da ngay da ngay da ngay da ngay déranger nit ñi bëgg ñu mhm. rek wax ju bari. il faut ñu respecter sénégalais yi gis nga am na yoo xam ne jaru ko quoi génn fëgg dënn yuuxu jaay affaire de ga mais yow bu affaire yi di tar ba bal yi di tàq si mbedd mi kenn dalaa gis foofu nga bàyyi ba mu sedd nga yor sa làmmiñ bu rëy quoi bëgg génn dal sonal nit ñi wax ju bari non mais man je me dis ces la kan kan la ñu yàpp nañu dal rek garaawul xoolal mhm. opposé bu jotee ñi war a opposé wu dinañ opposé wu parce que Sénégal kenn amu fi amuñu ñoo xam ne dañu ñëw topp ci ginnaaw nit muy def lu ko neex wala topp intérêt Sénégal la nit ñi di topp fii ak le président Bassirou Diomaye Faye ak son équipe ñu ngi ci lancé bii di def li nga xam ne moom la Sénégal yi bëgg mais pour pourquoi ñu war a forcer di opposé wu vraiment nañ leen accompagner si li ñu nekk bu ñu demee ba war a jàdd yoon ñu ne leen ah saa nag yoon bi ngeen jàdd. du du fii et loolu yaakaar naa ne ñoom ci seen biir. moom sax waxoon na ko ñoom ci seen biir ak seen ay propre militant ku si mm. nar a jàdd koñ sa ay propre militant sa ay propre ministre sa ay propre DG. sa ay propre militant au ñoo taxaw na la sa ay fi nga jëm nii baaxul. baaxul donc jarul forcé ji am naa fit jarul forcé ay am naa noo jaru ko. Hmm. réew mi ñi fi doon tàppet xam nañ leen ñi fi amoon fit xam nañ leen ñi doon dugg ci jé <laughs> ci jéel yi xam nañ leen. ñi doon génn di manifester xam nañ leen léegi doo toog ba heure bii moom ñemewuñu jiyal mais mbedd mu féex mii yow jamono boobu sax métti woon na mais jamono ji mbedd mi la moo fi am lu dul féex nga bàyyi affaire bi féex nga bëgg noo di bëgg ci taawal bi quoi non non dëkk bi lii non mais quand même gars yi nañu respecté tamit <laughs> euh, ci ci noonu sax la ñuy wax ci propos yi nga xam ne moom Aminata Touré yëkkati na ko